bi taxaw ci yoon bi Prado mu gaare ci yoon bi nekkaat 02 52 borom Prado bi gaare ci yoon bi borom mi ñi fi doo bi taxaw ci yoon bi dafa baare nit ñi dañ ñaan mu ñëw déplacer oto ñu ngi ñaan borom Prado B4 0252 mu daal oto sama may weer wu بعناية ربنا تمام أيوة شمس الدين الإسلامي يقبل الله مولاه بالعزة والحماية للغاية السلمية يرشدنا

moo def dafa naka de maa ngi leen si jàmm alhamdulilah. waaw waaw boo jëlee jëlee ci jàmm 52 52 ñu ngi ñaax borom parado bi jaare ci diggu tali mi ñëw ay kilifa taxaw bëgg génn di jaare parado bi ci diggu tali bi DK 02 52 kilifa taxaw si tali bi di na Salaamaaleykum, na ngeen Nanti. Ñu

Não, não, wala não. bi tey dana não taalal benn parti mën a teewlu Mati loolu ñu taalal não não não yow yaa waroon toog nii. Thank you. Ôi à người mà chúng ta nói Thank you.

mais Aïcha waaye yaa ngi en train si ma xala

ñoom Babacar nag mag mag mag mag ki ñëw départ ndox man maa départ si ginnaaw bi suuf. sama xarit bi man la jàppale damaa ñëw liggéey si. man daal xaw ma maam dong laaj maa ngi nii daaw sama tànk. kon jaaree si femme nee na xew bi maam la si. waaw mu ngoog.